waaw merci jërëjëf xam naa comme ni ko sama collègue bi waxee rek tey suñu ñaari député la ñu convoqué muy Massata ak Mamadou Niang ñu ñëwoon rek di di montré suñu solidarité par rapport ak ñoom ñu ñëw wuyu si ndax euh, comme dañ leen dañ leen convoqué ñu ñëw ñu ngi doon wax ne que ñu ngi leen di seet partout donc tey la farata ñoom ñu ñëw euh, wuyu si pour wax leen ne que ne ñoom amuñu dara lu ñuy reproché wu voilà ñu ñëw wuyu si convocation bi maintenant nag comme ni ñu ko waxee convoqué nañ leen ñu ñëw léegi nag dañuy déglu ba xam euh, nan lañ leen di doyee ñoom bu ñu demee dugg nañ si biir ak seeni avocat pour l'instant on attend ñoom ñu génn mais ñoom ñu ngi si jàmm dugg nañ si biir léegi ñu ngi xaar bu ñu génn lu bàcc lii gis nañ tam ni euh, waa waaw loolu itam ban réaction nga ci am. waaw xam nga dëkk bi dañuy faral di wax ne que ne euh, nit ñi ku ku tooñ xamuñu ku tooñ ku fayu la ñu xam. ndax bu fekkente ne ñoom dañoo jël événement bi yemale ko rek ci conséquences yi nga xamante ne moom moo am ñu ne yaa ngi problème parce que avant loolu am na loo xamante ne moom moo amoon ñu ñuy ñuy araftu wax dénoncé nañ ko fu ne. donc ñun demandé nañu woon nañ à ce sax la femme par rapport ak yi mu waxoon mu excusé wu mais yooyu yëpp parce que dafa ay jël ay kii ay kàddu yoo xamante ne dafa tegginuwul yëkkati ko si suñu chef de parti suñu kilifa donc comme dénoncé nañu amul benn réaction ñuy continuer di di di def seen seen tooñ si biir assemblée président assemblée mu toog di déglu réagirul kenn réagirul donc am na si yoo xamante ne ñun mënuñu ko d'accord loolu moom moo tax ñun tam ñu def plainte parce que dafa jël ay kàddu yoo xamante ne teggandikuwul teg ko si suñu kilifa te loolu ñun tamit mënuñu ko accepter. est-ce que euh, honorable Ndialou euh, plainte yi arrêté na wala parce a bari. waaw ñi jotul woon déposé finalement ñoom dañuy déposé. yéen ñaata plainte ngeen bëgg déposé fépp waaye fépp fu fu fu njabootu sëñ Moustapha nekk fépp fu njabootu PUR nekk. dina déposer plainte pour wax leen nekk ne kàddu yi nga xamante ne moom la ñu jël teg ko si suñu kilifa du kàddu yoo xamante ne kàddu yu tegginu na te ñu ngi koy ñaawlu comme nag fii dafa am justice ñun on a confiance à cette justice là euh, dinañ def li nga xamante ne moom la ñu justice may te moom la ñu def loolu tax ñun tamit ñu déposer plainte di toog di xaar nag ni nga xamante ne noonu la ñu jëlee ay mesures pour pour déclencher procédure bi ñu defaat même mesure pour déclencher procédure yi par rapport ak ñun tam plainte bi nga xamante ne moom la ñu déposé waa honorable njalu baat ci li ngi lay gërëm euh, di la sant ci euh, ci sa taxawaay ci sa tontu yu leer yi itam.